mbokk yi ñu ngi lay nuyu di leen sant di leen jaajëfal euh, si teewlu bi ñu amaat mbégte euh, dalalaat nag euh, monsieur le ministre d'État Oumar Sarr député mais surtout nag coordonnateur bu parti démocratique sénégalais gis ngeen ko kon ci rubrique yi jàll ñu fekk si ko nag fii nga xam ne mooy permanence bu parti démocratique sénégalais monsieur le ministre d'État ginnaaw bañ a jaajëfalee si dalalaat bi ñu bàyyi la mu nuyoog sénégalais yi lay seetaan. Euh, jërëjëf euh, Aïssatou maa ngi leen di euh, gërëm di gërëm bu baax a baax seen émission bi balaa may wax nag dama bëgg rek nuyu sama sama jàmbaar yi nga xam ni ñoo ngi tey ci biir biir kaso yi maa ngi xalaat ñoom Karim maa ngi xalaat ñoom eh, Aïdara Silla ñoom Thierno Ousmane si eh, eh, ñoom Ndeye Khady donc ñoom na xee di géey ak ñeneen ak ñeneen di si boole nag sama nitu bopp yi ñoo xam ni ñoo leen di jàpp si dossier u jaxaay muy Abdou Aziz Diop ngeen xam ko bu baax muy Ibrahima Diallo Euh, ak mu di euh, sëriñ lii may ma ne maam baro ma leen bu baax a baax xëy na daan si ñëw si si waxtaan wi euh, di nuyu donc sénégalais yëpp di nuyu sénégalais yi di di la déglu nañ pour mm-hmm. waxtaan ak ñoom. léegi nag dañ koy dooree rek monsieur le ministre ak actualité bu bees bi mooy gis na kon remaniement bi am remaniement ni ñu remanié gouvernement bi Abdou Mbaye nekkatu fi. ñu bees dugg nañu yow lan mooy sa jàngat bu njëkk ci composition gouvernement bu bees bi. d'abord bon xam ngeen lu ñu xalaatoon nun euh, parti démocratique sénégalais si Abdou Mbaye ak si gouvernement wu Macky Sall bi xam ngeen demoon nu sax bay def benn motion de censure pour wax ni ku mel na Abdou Mbaye warul mën a jiitu si gouvernement wu Sénégal parce que xam ngeen bu baax ñëpp xam nañu nii mi ngi euh, dugg bu baax mi ngi taq bu baax si comme ni nga koy waxee mi ngi taq rib mm-hmm. si euh, dossier Hissène Habré euh, ku mel noonu suñu commencé enquête Hissène Habré moom daan ko parce que vraiment banque am xaalisu Hissène Habré alalu Hissène Habré yëpp si moom la jaar ak si ay nitam mm-hmm. kon nag ku mel noonu mënul woon nekk premier ministre Sénégal wax nañu ko mosu bon def nañu sunu motion de censure Euh, malheureusement motion de censure boobu ñëpp xëy na suivre nañu ko noonu ñoo ngi jox xam 10 minutes xam 15 minutes ñoom jox leen ay heure heure ñuy wax di wax di wax di wax bay leen di wax lu leen neex alors que vraiment situation boobu ñu waxoon moom rek moo moo génnaat non seulement Hissène Habré dossier Hissène mi ngi avancé te su avancé moom mënul toog fii comme premier ministre ensuite vraiment résultat yu mu def yi euh, mën a wax ni euh, c'est un c'est résultat globalement négatif mm-hmm. ah bon oui absolument donc loolu xëy na si débat bi daan si eh, delluwaat mais dama dama xool rek parce que ñoo ngi si période du mënd je donne un exemple comme ça rek. ñoo ngi si mm-hmm. période du mënd ak ñoom wax yu ñu waxoon yëpp engagement yu ñu yu ah, ñu jëloon yëpp si kanamu nation bi. Mm-hmm. di wax eh, daan ko régler définitivement di wax eh, mois de juin daan def lii mois de juillet daan di reculer di reculer di reculer te Sénégal yëpp tey ñoo ngi si mënd mi. Mm-hmm. donc seen résultat mel na mën naa wax nii lu nu xawoon def sax lu xaw a baax. mbënd mi dig na si mbënd mi donc vraiment c'est un gouvernement euh, abs xam nga sax sax dama ko globalement négatif laa wax dama doon wax absolument négatif <laughs> mooy amul dara lu euh, lu baax la nga xam ni vraiment mën ko jëlee si euh, nii ñoom ñu téye réew mi. Mm-hmm. mais nag monsieur le xanaa te xanaa kay war nga kontaan si président Macky Sall ni mu promouvoir ay ay doomu Dagana. Euh, ak ñoo xam ne certainement am ngeen ay jaajaa xëy na yéen a doon fowandoo wala doon mbëkkandoo suuf ensemble ma euh, su ma tuddee ku mel ne euh, manque Ndiaye ah ministre des affaires hmm. ak tamit ki nga xam ne mooy Matar Cissé nekkoon fi douane te su ma juumalee moom la ñu dénk budget ak yu mel noonu. Hmm. donc mu mel ne kon fi mu ne am nga ay wujj nag ñoo xam ne. Hmm. dañu fas yéene ñëw dafanteeg yow ci Dagana. waaw mais indépendamment si si Dagana d' abord bon euh, tey jii ñoo ngi jël comme euh, premier ministre xam naa si waxtaan naat premier ministre euh, Mimi Touré bon aussi am na ña nga xam ni ñoo ngi jóge Dagana wax nga ñaar ñooñu xam ni sama ay rakku bopp noonu hein mm-hmm. ñoom ñëpp envoyé naa leen message di leen di leen wax félicitation ak di leen ñaanal ñu ñu nekk jàmbar si seen si seen liggéey boobu mm-hmm. am naa sax beneen. beneen euh, doomu doomu nijaay beneen cousine doomu nijaay euh, Anta Sarr aussi xam ni maamam yëpp ñoo ngi jógee euh, Dagana am na donc vraiment disons su fekkee ni rek der rek la mën naa wax ni vraiment loolu alhamdulilahi rabil alamin bon c'est sûr que maintenant ñoom am na xam ne ministère ministre technique noonu am na xam ni xëy du politique moo tax ñu gën a ñu gën leen fal teg foofu mais euh, bon daan daanu jis am na ñoo xam ne xam na bon ko yaa nga wax Matar Cissé Matar Cissé euh, nekkoon na sax sama bon ñi ki nekk ministre de la pêche nekkoon na sama directeur de euh, cabinet uh-huh. bon ak am na fu nekk bu bare fu fu nu jaar wax nga aussi manquat ñoo ñëpp vraiment uh-huh. comme la ma waxee ni samay rakk noonu et seen ñaari yaay yooyu sama xaritu yaay noonu woon donc vraiment samay rakk noonu te loolu politique du ko. du ko kon amul concurrence politique wala wala ñoom duñ la tiital euh, ci ci ci ci ci daal gox bi nga xam ne euh, yaa fa teg tànk en tout cas muy muy muy muy daganal. ah je parce que mënuñ ñëw defanteeg yow. waaw ah, je ne pense pas xam ku nekk am na sa ñoom am na liggéey bu leen jox ci ci réew mi bon Dagana euh, man maa ngi Dagana maa ngi nekk maire depuis déjà ah 96 léegi mu sax egg 18 ans. donc xaw xaw na yàgg ñoom ñëpp xamante noonu ñoom ñëpp. xamante si biir Dagana ñu bokk ñu bokk mbokk yëpp ñu ñu bokk loolu je ne pense pas xëy na Macky bëgg ne euh, seen technicité mais yaakaar naa ni duggul leen ci gouvernement bi ngir politique ku nekk xam na euh, Matar euh, am na xam-xam bu baax si mbirum économie si mbirum budget jàng na loolu demoon na IGE dem douane donc am na lu mu xam si si mbirum budget ak mbirum économie Euh, Mankeur si nekkoon euh, directeur cabinet Gadio ensuite mu nekk. Euh, ambassadeur ambassadeur ensuite léegi mu nekk ci gouvernement bi yooyu yëpp xam na leen am na ay jëf yu ñu def ci nguuru Abdoulaye Wade donc xam na leen bu baax a baax te yaakaar naa ni warul yàq daal. si la ma yaakaar warul yàq seen liggéey. Oh. te warul yàq sunu politique la. waaw li si kanam rawul bët keneen ki nga xam ne nag xam nga ko bu baax mooy premier ministre bu bees bi di Mimi Touré moom ñu gën ko ñu gënoon ko ràññee ci ministère de la justice. Mm-hmm. ah euh, ndaxte ñu mel na yow nga xam ne ay traqué ngeen ndax dañ jàpp ne seen milliards yi ngeen yoon ni ngeen ko amee. Euh, traqué mooy suñu tur. <laughs> waaw yéen traqué lañ leen di woowee <laughs> moo xamal la boobu kon Mimi Touré dem na. Euh, ki ko remplacé di maître Sidiki Kaba. maître Sidiki Kaba tamit dégg nga li nga xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi ko koy ñu ngi ko koy tegalal ah di wax ne xëy na. seen xel mi ngi mi ngi tey si moom ndaxte doon na fi defendre défendre euh, Bibo Bourgi muy traqué na yow ak tamit ci wàllu dossier Habré bi euh, mi ngi défendre victime mu Habré bi donc est-ce que de façon générale nomination Sidiki Kaba ak mi Mimi Touré ndax euh, soulagement la ci yéen traqué yi. waaw xam nga bon d'abord dégg naa lu bare yu nuy wax ci ministre de la justice bu bees bi wax nga ñaar yooyu am na beneen bu ñuy wax mu ni moom moo waxoon ni. il faut que ñu ñu légaliser la borom ñaari tur yi. <laughs> il faut que ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi leen euh, ñu mën a euh, nekk si. ñu mën a xàppi <laughs> ah, waaw waaw <laughs> réew mi. am na yenn ak yeneen yu ñu wax si moom mais xam nga xam ngeen mën naa wax ni ministre ministre rek la ministre la justice la ñëw na euh, pour man comme ministre bu nekk si biir gouvernement la la nekk. c'est gouvernement bi mi ngi dépendre si président. parce que suñu système politique président bi moom mooy définir politique bi président de la république moom mooy définir politique bi nommé premier ministre ba nga xam ne dafa rek coordonné euh, gouvernement bi xëy na donc lu mu mënti def ëllëg parce que ëllëg ñu ñuy xool defagul dara lu mënti def ëllëg daanu xam ni mi ngi jóge ci président Macky Sall jaar ci Mimi Touré mm-hmm. mais amul dara lu lu mën a bees la nga xam ni euh, benn jëf ba nga xam ne ni moom moom moo ko sañ defal boppam. dama yaakaar ne nag su nekk ci biir gouvernement am na politique gouvernement am na la nga xam ni quand même il faut que. Euh, mu mën a mu mën a leer. mais mu Touré premier ministre ku mel ni Me El Hadji Diouf nee na c'est une catastrophe. d'accord nga. non man mënuma bon xam ngeen affaire gouvernement d'abord Mimi ñëpp xam na nañu sama euh, sama sama jigéen la mooy. Euh, mooy sama mooy yaayu joor joor xam ngeen mooy sama mooy sama taaw mooy taawam mm-hmm. aussi eh, am na donc fu nu fu nu fu nu jaar euh, bon mënuma euh, envoyé naa ko bien sûr comme envoyé naa ko euh, disons message de félicitation waaw bien sûr parce que quand am na relation boobu joor mag la léegi ah donc am na relation boobu donc dam koy souhaiter rek bonne chance mais xam na ni nguuru nguuru Macky Sall nguur bu bu doy waar la ñoom ñëpp bëgg naa vraiment su fekkoon sama sama yéene rek la euh, ñoom ñu am ñu am succès ñu am ndam si lii ñuy def mm-hmm. mais euh, yaakaar naa ni comme la mu ko waxee sànq rek euh, yëpp mu ngi dépendre si Macky Sall Macky moom mooy chef de chef mooy chef de l'État mooy définir politique bi donc ñoom premier ministre bi lu mu mënti def kee moo ko ko wala santaane ko mm-hmm. Macky Sall donc loolu yëpp te Macky Sall xam nañu ko déjà ñun xamoon nañu ko si biir PDS parce que moo nekkoon sunu sunu numéro 2 PDS. nekkoon ci gouvernement wu PDS bay 2007 nekkoon premier ministre nekkoon ministre de l'intérieur nekkoon na fi ministre de l'énergie. Mm-hmm. ak euh, euh, ministre de l'hydraulique ak des ak des mines donc am na fu mu jaar foofu yooyu yëpp. Mm-hmm. ñu xam ne xam nu bu baax man bon sama xarit la woon aussi euh, Macky Sall suñu xarit lu ñëpp. bon vraiment bon léegi nekk na jël na pouvoir bi nekk na président mais disons ku nu xamoon kooku du kii ñu gis muy muy muy lan mooy xol bi lii mu ñëkk def bu ne nii mu ni bon man damay créer loi damay recréer loi enrichissement illicite defaat créer loolu wax naa toujours ni soo liiree bu baax te man maa ngi bokk suñu jàngi ñu bu baax euh, euh, yoonu yokkute yoonu yokkute du loolu du yu mel noonu moo si nekk mais ni première chose bu muy def mooy tëj doomu Ablaye Wade te moom euh, Macky Sall suñ ko xamee si Sénégal Ablaye Wade moo tax suñ ko xamee sax si Sénégal mën na wax en grande partie Karim Wade moo tax cest à su commencé def loolu nii lu muy gën a euh, def lu muy def en premier lieu mooy fexe bay suul parti démocratique sénégalais yi di nu poursuivre ñun ñëpp xam ne ñoo doon xaritu démbam euh, du ni rek fu mu jëm warul baax te en même temps malheureusement loolu ñu doon wax démb nii mënul euh, ñi ni cuune la mais soo xoolee bu baax léegi Sénégal yëpp ñooy wax dëkk bi dafa Macky te Macky mooy dëkk bi amul dëkk bi dafa dafa dëkk bi amul amul dara kenn amul dara. dëkk bi yàqu na donc Macky mooy yàqu. ci hmm. Sénégal léegi. donc loolu loolu wane na ni ñu wax démb rek feeñ na tey. Ah, mais monsieur mi sànq da nga ne euh, Macky Sall bi ñu gën a xam Karim Wade moo tax pourquoi man dama defoon ne Macky Sall bi ñu gën a xam Maître Abdoulaye Wade moo tax lan la ko Karim defal ba nit ñi war ko xam. mais bon moom mën na ko wax xam ngeen su su biir euh, régime mu euh, Abdoulaye wat su président lay Wade. dison su nekkee moom xam premier gouvernement bi déjà nekk si woon. ensuite Idrissa Seck xëy na moo ko gën a jàppale ba mu nekk si dugg si biir gouvernement bi mais à part de là Karim moo nekk nekkoon xaritam bu ko gën a jógee xar moo ko dimbale si si papaam ba mu nekk euh, premier ministre. ah bon bay mu am yeneen ndombu tànk si si réew mi mu am sax xëy na yenn alal yi donc su jëlee kooku premier acte ba ngay def. pour remercier baayam wala remercier ko moom mooy jël ko tëj ci kaso ça veut dire que vraiment nit ñi war nañu la xolaat. mais xalaatoo ne euh. loolu gestion la ak transparence et que euh, comme ni nga waxee président Macky Sall bi nga xamoon bi xamoon ci PDS aujourd'hui président de la République la donc euh, Sénégal yi wóolu ko sànni ko carte mu mu war saytu quand même euh, alalu Sénégal fu mu dugg kon euh, waru am état d'âme bu fekkante ne Karim Wade ak papaam am na ñu ko jàppale tamit Séné jàppale Sénégal moo gën a ñor gisoo loolu. waa mais soo xoolee bu baax xam nga moom dafa njëkk def déclaration patrimoine mm-hmm. nii moom si bopp si boppam am na lu toll euh, huit milliards mm-hmm. am na ñu wax sax ni ëpp na loolu am na ñu wax sax nii am na yu bare alal yu bare yu mu am yi déclaré wu ko am na ñu wax ñu bare c'est xam ngeen déclaré patrimoine bi compte yi rek la wax numéro yenn numéro compte yi la wax kenn xamul ñaata alal moo amoon si biir compte yi mm-hmm. su amee alal boobu yëpp. su amee àll boobu yëpp ba pare nii dafay topp ñenn ña nga xam ni xëy na am na fu nu jaar am na sax ay njuuj njaaj ci moom na il faut que mu expliquer su ñëwoon si Sénégal yëpp ni leen lii fii laa jaar pour am lii lii lii ak lii asama bala xëy na mën nañu ko gëm mais j'ai l'impression que moom dafa am lu mu am ba pare. bu leen xañ yéen. ba pare nii il faut que moo fexe ba ñi ñu amoon ñu dara ma ma nangu ko. Euh, euh, xëy na euh, pour ñoom daal ñun ndóol daal xanaa xanaa yaakaar naa ni soxor man pour man soxor mënul paase loolu. <laughs> mooy ba pare ba nga yàq. <laughs> waaw jaar na mooy mooy loolu rek c'est am sa am ni ñee ñëpp naa leen il faut que muy muy. moom it ci kaw ci kaw kaw a kaw. léegi sinon mën nañu maase ak man ah waruma am maas donc damay. <laughs> kon jalousie la daal. ah, ah xam naa ne daal bon pour man défaut la daal bu bon xam nga ndax. bon en tout cas du du lu lu lu ma. rafetuloo ko waaw. léegi euh, Omar Sarr euh, euh, ñu dellusiwaat tuuti ci Mimi Touré. Hmm? Mimi Touré yaa ngi koy wax léegi ah sa soxna la woon moo la jural sa taaw ah, di di di joor. est-ce que yow am nga impression comme ni ma ko waxee léegi ci defe naa yaay Karim Wade bu dee mooy mooy euh, euh, euh, maamu traqué yi. Hmm. yow yaay seen papa. Hmm. <laughs> kon gisoo ne Mimi Touré dafay acharné ci yow ak ñi mel na yow ah xëy na par vengeance ah xëy na seen diggante yéen ñaar seen côté privé. Hmm. am na loo xam ne defoon nga ko fa mu meree la. dégg nga donc muy defanteeg yow ci côté boobu wala book Euh, comme ñëpp xam nañ sa relation ak moom. Hmm. bëgg na joxe ay gage wane ne. Hmm. Euh, ci lii mission bii ñu ko jox. Hmm. amu ci état d'âme dañ ci dem ba jeex. noo ko jàngatee yow. Euh, pour man xëy na sax du mu e-, dem ba egg foofu damay wax rek nii moom ministre la juste lu mu def Macky Sall moo ko santaane donc pour man xëy na moom elle a été une bonne élève hein appliqué na lu ko euh, Macky Sall wax yëpp dina dégg yenn saa yi Macky Sall di wax ni lii yëgu ko woon wala laa yëgu woon mais xam naa ni yëpp lu muy wax wax waxin rek la. moom moo mooy nekk à la base de tout ma Macky Sall pour man na moom moo ko commandé di suivre yenn yi lui personnellement mooy suivre yenn dossiers yi donc pour man lu mu def lii. c'est euh, pour xëy na sax moo tax mu nekk tey premier ministre hein, parce que euh, lu ko Macky euh, santaane woon yëpp moom def na ko def na ko donc pour man ça vraiment il a été une une bonne élève bon sama cas personnel bon je pense que euh, man amu dara la may la may la may nëbb parce que man sama alal yëpp laa mos a génn journaux yi ni journaux yi waxoon naa keroog bu nu dajee journaux yëpp xam nañu man yii kër laa am. waaw milliardaire nga ñëpp xam nañ ko eh, xam nga <laughs> wax naa leen fekk am na ay. milliards justement nag na sax parce moom moom sa soxna la woon xëy na moom elle est très bien placée pour xam dërëm ak ñaar dërëm yi nga am ci biir réew ak ya nga am bitim réew elle est xam nga man dama mos wax ni. ce que vraiment gis nañu sama ay compte ay milliards ñu jël. dinañ njàng may leen waaw vraiment man vraiment ñu je pense que man maa ngi eh, dëkk Dagana sama mbokk yëpp xam nañu ma xam ne la mos am. man ak ñoom ñoo ko bokk su ma amoon milliard gis ñoom ñu nekk ci situation bi vraiment waroon xanaa xam kooku du man mhm. mu nekk man donc man mais justement bala maa avancé yow sa compte dañ ko bloqué wala bloqué wuñu ko yow non kenn kenn ko bloqué sama compte sama compte lu bëri nekk si <laughs> déjà ba xam suñ ko compte suñ ko bloqué moom bloqué ak ñàkk bloqué yow <laughs> ñoo si yem benn la <laughs> mais mais est-ce que pour en revenir à à à à madame le premier ministre seen seen doom bi joor hmm? euh, naka lay dundee Euh, situation bu mel nii mooy euh, yaayam di topp papaam. Mm-hmm. Ah, euh, xëy na ni xëy na yaa ngi passé sa dernier jour de liberté. Eh. <laughs> donc donc donc naka lay dundee situation bi. mais xam nga d' abord bon man damay dem gërëm naa chaque fois gërëm naa bu baax Mimi parce que moom moo gën a yar sunu sunu doom boobu bu nekkee xale. la la ñu teqale ko bon ba léegi euh, am na euh, donc ñaar fukki ñaar fukki at ak suñu topp kon moom moo ko yaroon et yaakaar naa ni yar na ko bu baax euh, ensuite jàngam dem na ba mu egg fi mu egg am MBA am jàng jàng vraiment bu bu baax a baax loolu nag moom liggéey na si lu lu bare donc kooku yaay bu baax la. kon mënuma topp politique bi rek bay euh, fàtte loolu mhm. bon maintenant si euh, beneen bi jor léegi ku ku mag la euh, xam na ràññee na bu baax a baax xam na kuy kuy baayam kuy yaayam donc je pense que loolu moo gën a am solo bon. lii mais di nga waxtaan ak moom ci situation bi. dina la ci kii yor. oui bien sûr daan moom dana waxtaan ak man dana waxtaan ak yaayam mais. Eh, keroog am na benn lii naa benn journal bu bind benn roman si loolu daal yoo xam ni joor ne bëgg xaru xaw ma lan te bu bëgg def lii dafay ànd ak bàyyam ànd ak ah, lii ak lii xam nga loolu vraiment roman la jooyloo na non non nekk fii rek benn journaliste xam naa ni c'est benn seen benn mbokk rek nekk fii bind lu ko neex mais attention ah oui vraiment franchement lu dëgg kon kon non euh, ah, ah, elle pas du tout au contraire elle est très très sable mag la léegi bon, elle était, euh, elle maîtrise totalement la situation donc. Euh, mais est-ce que enfin, est-ce que est-ce que du exercer benn benn forme de pression peut-être sa maman non maman laisse papa et tout ça il faut pas l'amener en tôle elle fait pas ce genre de pression. bon man xam nga bu baax lu muy wax. Euh, lu mu wax yaay ji mais cela étant dit c'est-à-dire que amul benn benn doom. bu bëgg mm-hmm. sa bàyyi dem dem dem dem dem prison. kooku kenn amul benn doom bu ko bu ko bëgg xam lu muy wax te ensuite man. franchement si dossier bi su fekkee euh, enrichissement illicite si dossier boobu dama xamul nan nu mën a def ba yóbbu ma euh, euh, kaso parce que vraiment ku ku ñu yóbbu kaso xanaa. non am ay bagages parce que mais bagages bala nga see ñëw nañ dem jële ji suñu wecc ndax ñun ñun ñun xam nga bokkuñu si traake yi. <laughs> te te comme on n'est pas riche moo xam licite la. moo xam licitement <laughs> wala illicitement kon ñu dem jële ji sunu sunu sunu dërëm yi ci waa bes laa dellu si waat mais euh, monsieur le ministre yow am nga ay bagages lu tax. Euh, gars yi war la topp ci plan Jaxaay la mais bala ma see ñëw. damay ñëw déjà ci ki nga xam ne pour man euh, c'est le miraculé ah yenn traqué yi moom moom dëgg-dëgg mooy seen drapeau blanc. mooy seen éléphant blanc plutôt di bu Tahibou ndax naka nga jàngatee moom nee nañu dafa daf leen jege trop mbirum mi noo ko jàngatee. boo xam ngeen quand même man mbir mi tëba tëba doy waar. parce que euh, Taïbu d'abord euh, c'est vrai jóge woon président Ablaye Wade am na liggéey yu bare président Ablaye Wade moo ko doon sant mu jógee donc vraiment nekk vraiment collaborateur bu jógee euh, Ablaye moom moom directeur cadastre woon cadastre benn direction la mais cadastre xam nga liggéeyu suuf lu muy demee cadastre am na rôle bu muy joué mooy disons natt suuf yi Euh, urbanisme am na rôle bu muy joué mooy par exemple wax ndax euh, fii euh, mën nañ fi dëkk wala kenn mën fi dëkk mais kuy joxe kuy maye terrain yi suuf yi moom mooy domaine donc directeur des domaines ku chef nag domaine ak cadastre ñoom ñëpp ku leen chef mooy kooku ñu wooyee directeur général des impôts et mu nekk léegi ministre de l'économie. moom moomu yu jël nii tey bu du koy tëj. moom moom mu nekk chef am ñu ne ñu koy def ministre. doy na waar. ah donc moom moom mooy quand même un un problème si ñooñu kenn enquête lu leen kenn waxu leen dara. Mm-hmm. se comme mi ngi am na dal ku am ndey ku amul amul ndey. Mm-hmm. donc loolu moo tax ma ni vraiment su doon lii ñuy def jël euh, directeur CADAS jël directeur urbanisme se xool nu bu baax a baax su naan enquête enquête bu baax a baax ku am ak ku amul suuf yi nu mu demee. à ce moment vraiment je pense que. quand même le, le que quand moom pour sauver sa peau hein, on, on euh, euh, clairement euh, mu def médiation pénale comprendre nga ko. bon bon man du ma du ma Tahibou bon su ko man maa ngi nekkoon situation Tahibou defu dara te wóor na ma ni man amul lu ñu koy lu ñu koy tuumaal defu ko pour man ma deful dara du ma def médiation pénale su kon tey ñoom jàppoon nañu ma ni duñ may duñ may tëj wala médiation pénale dem leen wax dem leen tëji xam man amoo amoo problème bu mooy mais man du ma du ma tey bu xëy na am na leneen lu mu calculé moom du def politique xa euh, collaborateur Abdoulaye Wade rek la woon xëy na loolu moo tax yenn yi mu def ko mais bon man xaw ma dossier bu baax damay liir comme comme yéen damay lire ci journaux yi mais gisuma tey bu ba mu expliqué ma Euh, lu tax mu def. ah mais mais mais à part affaire euh, euh, affaire Tahirou bi dégg nañu ay libéraux ah yu yu wax ne. yuy dénoncer vraiment euh, médiation pénale bu mu def et tout ça et am na sañu dem ba ne bu dee am na libéraux boobu benn am am na bu dee bu am bis bu amee libéral boo xam ne nangu na def médiation pénale boobu yéen pratiquement da yenn ko vomir est-ce loolu mooy si mooy mooy sa position mooy position parti bi ak sa xalaat personnel yow xam nga position parti bi moom mënul jëlaguñu position bu mel noonu. Mhm. mais man sama position personnelle. waaw mooy naa ko mooy man du ma def médiation pénale ku ma déggal du def médiation pénale. su fekkee vraiment def naa la xam ni waruma ko def c'est def naa sàcc naa réew mi alalu réew mi du ma war jàpp proveni ni nag prouvé def naa ko pas rek parce que man PDS laa kon du ma war tëj mais sama jëlee sama nju njaajee si alalu réew mi du ma war jël. téye tëj. man loolu laa gëm mais nag bu mu nekk ku ma ku ma amul ndey ku amul baay ku ku ma ku mos njuuj njaaj u jël àll réew mi def ko neneen nun ko jël mu commencé nag enquête bi dafay ñëpp nu war a enquête. Mhm. jaar commencé président jaar si ay ministre jaar si ñëpp mais rek di wax ni ñu jógee Ablaye Wade rek ñuy war a jël wala ñuy nekk nekk si nguur gi rek depuis 2008 wala yu mel noonu. loolu c'est pas sérieux il faut que vraiment ñu ñu xoolaat Sénégal lu mu demee xalaat depuis ay at at lu Sénégal demee ñu gérer deniers publics yëpp ñu yore ala xaalisu xaalisu réew mi yëpp ñu ko ñu ko ñu ko laal ñu ko téye ñu def enquete comme ça xool bu baax ñu ñu régler problème bi définitivement. d'accord maintenant euh, Oumar Sarr yow ba ñu ba ñu ba ñu euh, lever sa immunité parlementaire ba léegi lan moo changé ci yow. <laughs> bon. déjà bu mu lever sama immunité je pense que léegi presque léegi mu de mu def atteint euh, donc lan principalement ñoom sama bu mu lever sama immunité parlementaire euh, du doon pour ma enquête ma sur enrichissement illicite donc bu mu lever sama immunité pare woon ma benn yoon laaj ma lan laa am si alal lan ak nan laa ko amee benn yoon boobu mm-hmm. depuis lors kenn woowu ma maintenant en même temps quand même si immunité parlementaire en même temps que ñu levee immunité parlementaire boobu duñu wax ni yéen waru leen voyager mhm. donc waru leen dem bitim réew donc depuis lors xanaa benn yoon. boobu mais à part ça amu amuñu droit neen dem bitim réew. donc loolu yëpp euh, mu nekk ay coono yu ñu teg. parce que ku mel ne man xam ni euh, mën naa liggéey fu nekk si. ci àdduna bi. parce que yow sa sa sa profession lan la. waaw man xam nga euh, bon docteur la ci informatique euh, nekk expert bu ñu xam ci réew yu yu bare. xam ne hmm, man ak surtout Roissy Charles oh, naa dem euh, dem si liggéey si liggéey ay ay ay réew yu bare mais donc lii ñu ma téye fii du mu mën a liggéey. Hmm. ah donc damay topp. day tax kon ceeb bi daal. waaw moom ñoom ñoom ñoo créé situation bu bu mel noonu créé ko pour man. mais créé ko aussi pour ñeneen ñeneen responsable euh, PDS yu si yu si ëpp ñu leen euh, yéen daal toog leen fii euh, bay kanam bay kanam kenn xamul nag kanam kañ lay jeex <laughs> mais nag xanaa xanaa a ah, de toute façon dana jeex au plus tard en en 2017 mm-hmm. parce que nguur gi je pense pas que Sénégal yi mën a euh, euh, téyaat nguur gu mel nii. Mm. mais nag euh, yow yaa ngi continuer di exercer sa liggéey parlementaire yaa ngi dem yaa ngi dem assemblée normalement et tout ça. xam nga suñu levee sa immunité. Mm-hmm. du rek yow mënul la enquête mënul la woo police mënul la woo gendarmerie ak yu mel noonu loolu mooy lever immunité. Mm-hmm. parce que sinon pour député amuñu droit di ko convoquer police ak gendarmerie sauf flagrant délit. donc loolu moo tax ñu ni ñu ñu suñu immunité mais ba léegi député nga ba léegi da participer ci réunion yëpp en tant que député mais seulement député bu gendarmerie mën a ak police mën a woo. ok ça va donc là il nous reste minutes donc ñu taf tafay laaj yi ñu ñëw sànq ci ni ma ko waxee loo xam ne man euh, euh, pour man ah, euh, c'est quand même une injustice mooy. Euh, li tax enrichissement illicite ak ñoom seen yow li ñu tudd bari na euh, nu ma ko waxee ñu bari jàpp nañ ne milliardaire nga euh, waaye surtout plan jaxaay bi. Hmm. plan jaxaay bi ak produit phytosanitaire bi. Hmm. yaa ngi gis nu mu agité quand même actualité yow yaa doon ministre bi nga xam ne moo moo coiffé autant plan plan jaxaay ak lépp loo xam ne dafay dafay gravité à la périphérie notamment produit fito phytosanitaire yooyu. Euh, ñu jàpp nag ñi nga xam ne euh, jàpp nañ ne ñooñu ñi ngi ci biir ku si mel ne bëri na ñu ah, mais man ñi ma ñi ma si gën a ñi gën a fës mooy Abdou Aziz Diop nekkoon si directeur de cabinet euh, mu doon gérer plan Jaxaay ak ku mel ne Aïda Aïda Ñonga ah. mm. donc ñooñu ñu kële Abdou Aziz Diop ma nga fi nga xam ne mooy mooy rëbësan ah. ku si mel ne Aïda Ñongu moom xamaguñu exactement position lan la léeg ñu ni non-lieu la léeg ñu ni nangam en tout cas euh, ñoom ñu ngi ci góote gi mais pendant ce temps la yow mi nga xam ne mhm. cool yëpp yaa ko war a yow yaa leen dugal ci problème yooyu yow euh, euh, yaa ngi xappi di enjoy di di di di di di dem nu mu la neexee mhm. est-ce que doo toog ba yàgg nga am problème conscience Omar Sarr ne yow yaa dugal Aziz Diop prison te yaa indil coono ay ay da ñong ak ñeneen ñi bon xam nga d'abord ba soo waxee ni euh, duñ toog di di appui xam nga au début si bu ñu commencé euh, sunu waxtaan wi. Mhm. dama njëkk wax lu ma metti seen situation mhm. ñoom. bon d'abord bien sûr euh, la mu ko waxoon ba may def conférence de presse bu leen téye ba pare dama ni su fekkoon ni nguur gi mënoon na ma jël téye bàyyi leen man mën naa damay joxe sama sama bopp. Mhm. Euh, ensuite bon bien sûr que ñoom si enquête bi xam nga am na ya nga xam ni euh, ministre moo koy moo koy def am na ya nga xam ni coordonnateur wala directeur moo koy def mais soo xoolee bu baax lu leen di ñoom lu leen di reproché euh, du nii ñoom sama coordonnateur yi parce que ñetti coordonnateur rek ñu tëj jaxaay yëpp ñu jël ñett ña nga xam ne ñoo nekkoon coordonnateur ñeent nu kenn ki fàttu donc mu des ñett ñu ni euh, ñett yooyu yëpp ñu jël leen tëj balaa euh, nawet bi di ñëw parce que nawet baa ngi doon ñëw te xam na nañu ñoom bu baax lu leen doon xaar si nawet bi. Mhm. comme ça ñu mën a wax ñii la. Mhm. bon mais soo xoolee bu baax lu leen lu leen reproché du ni euh, am na ña xam ne pare wuñu seen liggéey xam nga ñoo doon tabax notamment ñoo doon tabax ay ay logements. Mhm. tabax nañu deux mille et quelques sur les 3000 sur sur euh, le reste am na ñu ah, ñu doon avancé am na ñoo xam ne tabax nu moitié am na xam ne tabax nu mais tabax yëpp ñoo ngi doon ñoo ngi doon avancé si loolu nag am na ay entreprises xam ne pare wu noonu par exemple am na entreprise ba ni euh, fay nañu ko euh, des na dese na 1 su desee 1 million lan ñuy def ñoom seen enquête boobu ñuy jël 1 million ni entreprise bi yow yaa ko war fay après ni Aziz Diop yow tam comme entreprise ah, fay dese na 1 million yow itam war nga fay 1 million. yow Ibou Diallo war nga fay un million yow Serigne lii mën nga fay un million donc noonu ñu calculer bay trouver un milliard quelque xam ni entrepreneur yi ñoom ñoo ko euh, ñoo ko euh, waroon mooy liggéey bu eggul ah bu bu bu nu commencé ñoom c'est eggul mais soo xoolee bu baax a baax d'abord bu nu ko calculer waat xool du un milliard et quelque sept cent xam ne ñoom duñ rocc ñenn ñi xëy na en tout cas sept bu nu calculer bu baax sept cent euh, million la woon mais d'abord ñoom ñoom ñett ñooñu lan mooy seen responsabilité si entreprise bu parewul liggéeyam c'est lan moo lan moo mën a tax lan ban xalaat moo mën a tax ba ñoo ñooñu xam ni euh, vraiment du duñu entrepreneur coordonnateur loolu ñoo signé rek contrat yi que ñooñu ñu tëj leen ndax ñii parewuñu kenn mësul gis lu mel noonu si su ko doon def xanaa ñuy directeur yëpp ñuy tëj Sénégal xanaa kon Sénégal xam naa ne prison dëkk bu nekk dina am ñaata nit ci prison. Mm-hmm. parce que c'est pas normal kenn nit sax xel sax mënu ko xalaat entrepreneur bi parewul kon ñu ni ñetti coordonnateur ku nekk yow yéen la mais quand même ñu dem bay nii sax du tëj ña xam ni ay travailleurs ñu ko xam ne du leen joxoon ay indemnité ko ñuy jox indemnité yow lan mooy sa responsabilité ñun non seulement da ngay fay mais du la tëj te fekkee fayuloo. mais c'est quand même grave c'est ñoom du je pense que duñu wax di wax jaxaay fu nekk ñu wax jaxaay di wax di jaxaay ba nga xam ni il fallait que pan ñu wax ni ay milliards ak milliards nun dugal jaxaay say jëriñul dara donc il fallait que là ñu euh, tëj ay nit mais objectivement soo xoolee dossier bi amul lu tax ñu mën a tëj kenn si ñoom et même yaa ngi wax en même temps produit phytosanitaire loolu ñuy wax produit phytosanitaire di wax ay ay réunion du ñu waxoon ñoom du ñuy tëj ay réunion du war a tëj bay xool seen seen dossier ndax ay réunion fay nañu ko wala fay nañu ko mais xam quand même état muy mm-hmm. dem di laaj pour ñu tëj nit parce que il faut que ñu vérifier ndax fay nañu la wala kenn fayul la. ñu tëj la ba ba doog a vérifier. mais quand même c'est mm-hmm. grave c'est que quand war na am à l'instant même à la minute même war na xam ndax kii fay nañu ko si lii mais moo tax ma ni réellement du nu bëggoon rek euh, man nu bëggoon xëy na. waaw euh, euh, dugal wala wala wala wala wala wala gêné. moo xam nga man bëgguma wax wax yu wax yu. ah yu jaxas bon mais bon vraiment day na waar. mais métti na la quand même. na ma parce que defuñu dara. Mm-hmm. et honnêtement su fekkoon ni man la rek. ñu jël ma tëj ma moo ma gënal téeméer yoon que ñoom ñu leen kon kon kon quelque part vous en voulez quoi mais j'en veux au régime parce que man man man defuma dara hein ñoom defuñu dara mais ñoom ñoo def un dossier tellement bâclé que ñoom ñu jël ñooñu xam ni vraiment du nu du nu su ko vraiment du nu waxoon jaxaay le ministre chargé de jaxaay man la. kon su fekkee ni du nuy reproché ñooñu dara noonu noonu ko def sama sama jë. ma jël responsabilité boobu mais xëy na xëy na tamit nag ma le ministre yow yaa ko sëriñ nag. non man la xam nga loolu la yow yaa ko sëriñ yow euh, ñee xëy na ñu ñu gën a faible ah euh, ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy euh, ci ci suuf échelle bi. Hmm? Ah, xëy na ay Aziz Diop yooyu xam nga ay la ñu amuñu amuñu ay sëriñ dëgg rek mais yow ay kandi nga yor yooyu. non non ñëpp am na nañu ñaan Sénégal ak ñaan ñoo ñoo ñoo ànd mais je pense que indépendamment de ñaan boobu mais quand même jël décision te ñi nga xam ne defuñ dara. Hmm. décision boobu ñu ko jël vraiment daan ko daan ko xam naa ni ëllëg. si kanamu yàlla daan daan jox daan daan daan daan daan expliquer seen seen position. Ah, ah, fu ñu refermer chapitre boobu euh, foog mu nuyu nag euh, dëgg-dëgg euh, kooku mooy soxna Aziz Diop ah, sama xarit la te wax dëgg yàlla c'est une grande dame donc Soda Aziz Soda Cissé madame Diop. grande dame nga kon ni ko américain yi di waxee rek bi strong donc fi nga xam ne fa laa bëgg ñëwaat mooy plan jaxaay plan jaxaay boobu. Euh, soo may dafa comparaison bu gàtt ak euh, logement sociaux yu yu yu yu président Macky Sall euh, remake la wala toppandoo la wala wala lan mooy point focaux yu yu programme yooyu de façon générale. bon d' abord su lu président lay wax waxoon de waxoon ñu ngi def ñu dëkk ñi ci ndox mi. du leen tabaxal pour ñu mën a déménager dëkk foofu mu ni il mu. mu kawee par rapport à géej gi moo tax muy def image yu jaxaay pour lu lu lu nekk ci kaw donc loolu moo tax mu mu defoon plan boobu ñu construire euh, un programme de trois mille logements mais si sunu objectif lu ñu waxoon lu ñu jox ko lu ñu wooyee jaxaay 1 mooy lu ñu defoon loolu et ñu programme woon tabax jaxaay 2 après avoir réglé pour yenn problème mu financier yi donc ñoom lii ñu def si sunu programme nu ñu jël dem def ko tudde ko léegi xam nga euh, yaa yaakaar xam lu mel lu mel noonu ko tudde ah ba neex xam ah, ah, ah, yaakaar bañ ko tudde euh, euh, jaxay de moo d'abord loolu ensuite soo xoolee bu baax mm-hmm. les prix et c'est ça qui n'est vraiment pas juste soo xoolee bu baax bon nun def nañu ay deux mille et quelques logements entrepreneur yu bare duñu waxoon duñu bëggoon jàppale rek Ablaye Wade mm-hmm. parce que six millions cinq cent lu ñu loon fay su benn logement terminé logement boobu ñoom ñoo ngi koy fay presque 10 millions tey ñii ñu bëggoon jàpp normalement du leen waroon au contraire félicité xëy na sax dédommagé leen mais ñu ñu ni du leen di jàpp parce que terminé seen liggéey y avait pas de bénéfice liggéey boobu amuloon benn bénéfice bu su mënoon génn léegi nag xëy na seen 10 millions yooyu dana am ay ay bénéfice xamul nu mu koy defee mais en tout cas ci jaxaay boobu amul woon amul woon programme amul loolu ensuite jaxaay bu ñu koy créé xam ngeen. tunni moo tax ñun milliards yu bare du duñ dugg si biir jaxaay 6 millions 500 laa la wax nu doon fay entrepreneur bu nekk soo xoolee bu baax rien que 2000 logements rek ça fait déjà 13 milliards c'est que c'est pas ensuite cité bu mel noonu du mel ni comme cité yooyu ñoom ñoom ñu créé il faut nga dugal fa courant il faut nga dugal fa ndox il faut nga def aménagement il faut nga créer fa ay école il nga créer fa ay lycée il faut nga créer ay police il faut créer ay commune euh, euh, euh, centre santé yooyu yëpp ñu def ko pour créer une cité vraiment moderne donc loolu du loolu ñoom ñu def tey xëy na daan ko def ëllëg mais loolu du loolu ñu def tey ñu gaawantu nii bon daan fexe ba yóbbu ay nit foofu mais nit foofu il faut que il faut que cité boobu nit mën fa dund te pour mën fa dund il faut un minimum mm. de choses donc suñu programme nu jël mais luñ si def du loolu waaw waaw il copie mal. kon un criminel jamais parfait loolu. oui vraiment. et ensuite et ensuite damay profité pour wax keroog sax bu Macky Sall di visiter euh, euh, zone inondée yi dafay dem di di di di di visiter di inaugurer ya nga xam ne ñun ñoo ko defar suñu bopp. gis naa ko mu dem ay ay ay ay lag wuy. ay station yoo xam ne ñu ñoo ko dem. mais soxla na continuité de l'état rek. Ah, na wax continuité de wax gë nañu wax nañu gërëm wala mu ñëw tëj ñu noonu noonu gërëm. ay déliport ay yëpp xam ne ay ay ay réalisation yu ñu def la. Mm. te vraiment bëggoon naa ñu mën a comparer. Mm. ñun lu ñu def ci inondation ñoom lu ñu def en un an dépense yi 66 milliards te xam na lu mu demee dépense yi 66 milliards alors que ñun en 6 ans. on a on a a dépensé à peine ce montant là. en tout vérifier léegi man man nag si plan Jaxaay bëggoon naa si yàgg mais malheureusement temps bi mi ngi dem euh, taf taf rek euh, euh, Oumar Sarr nguur gi projet bi mu am ci képp koo xam ne en tout cas dañ la dénk alalu réew mi nga nga defal noonu doxalee si naka sudul noonu di nga toog fukki at yoo xam ne nii. doo mën a sàkku en tout cas kàddu askan wi yow noo ko noo ko jàngatee. xam nga d'abord xam nga loolu yëpp dafa laaj waxtaan et ensuite il faut nga nga euh, ñëpp ñëpp yem ñëpp yem mais justice lu war a waxtaan xool yeneen réew yi nan nuy def am na ñoo xam ni bien sûr suñu jëlee euh, alalu réew wala ñu def ko la nga xam ni jaaduwul du leen di condamné et à ce moment là du leen def ay années d' inéligibilité. Ah, ay France yooyu am ay France mais kenn mënu jël euh, ñaari mandat ñaari mandat wu président. Mhm. nii bon kii suñ ko condamné il faut que Macky daal mën a pare dix ans mi avant que moom mu mën a nekk euh, candidat wala yu mel noonu c' est que du ñuy calculer te ba te ñaaw sax. Mhm. parce que du ngi calculer si mandat présidentiel du ngi mel na ñoom seen mandat boobu nu bëgg nu bëgg a gérer daal. mais c'est pas normal mais c'est un pou normal non. non non mais quand même il faut faire quelque chose pas pour soi il faut nga soxla def def pour pour réew mi. la politique c'est aussi gérer ses propres intérêts ah non non non. mais mais vous n'êtes pas des def politique su fekkee ne politique mooy gérer ses propres intérêts ah vraiment <laughs> a ko si jiitu euh, yéen a bokk politicien bu baax affaire rek ñuy gérer bu baax situation parce que intérêt am lay lay gën a lay li jël loi bi Euh, euh, Benno Bokk Yaakaar déposé nañu ci table assemblée ah benn loi boo xam ne moom bëgg na dëgg-dëgg ñu ñu xool quand même en tout cas képp koo xam ne nii bëgg nga dénk nañ la wala dénk nañ la alalu réew mi donc nga def déclaration de patrimoine bala ngaa dugg ak soo pare te tamit loolu bëgg naa xam ndax da koy sànni xeer comme ni nga ni nga sànnee xeer fukki at yële. waaw mais xam nga. man sax loolu xëy na man d' accord pour euh, ñu mën a ku am. kuy gérer nga ci boobu. attends kuy gérer kuy gérer euh, réew mi nga def ni balaa ma balaa ma koy gérer bindoon ko balaa may dugg may dugg ci bi lii laa am et sama boo ma génnee lii laa am ñu mën ko vérifier mais xam nga ñoom ñoo ngi ñoo ngi ci ñoo seen gouvernement ba léegi loi bi xam nga kenn voté ko. Hmm. donc lii ñu. ñu jëlagum parce que ñoo ngi jël bu baax a baax mm-hmm. lii ñu jëlagum jël ñoo ngi jël maa ngi wax ñoo ngi sàcc allu réew mi xam nga dama bëgg wax mu leer rek. ñoom ñoo ngi sàcc allu réew mi donc. te du am benn tant que euh, voté loi bi ñoom duñ def seen déclaration de patrimoine donc kenn si ñoom. deful déclaration patron mën nañu. mais na sa waay rétroactif. rétroactif lan mën nañu lekk lekk lekk ba kanam. <laughs> doog a dugal ba kanam soog am dugal comme ça ñoom au moins. comme ça yéen bu ngeen ñëwee. seen <laughs> seen situation réglée. xam nga loolu lu def c'est qu'ensuite il faut que déclaration patrimoine mm. euh, pas nga def déclaration mais wax naa leen il faut nga déclarer au début. Mm. soo euh, balaa ngay la nga déclarer ko. ensuite après mu am un système ba xam ni te ba war a vérifier ndax la nga déclarer dëgg la wala du dëgg. mu am un véritable xam ñoo ngi wax office euh, euh, xam lu ñu koy waxee euh, mais benn office ba nga xam ni tu vérifier yooyu. Mm-hmm. mu am ay système ba nga xam ni ci biir entreprise yi. Mm-hmm. da ngay dugal ay nit ñu mën a vérifier kan moo joxe. ils sont ñu indépendants. c'est c'est ça il faut ah. un système pour xool kan moo njuuj njaaj. il faut un système beaucoup plus sophistiqué nga mën a demander ay chef d'entreprise saa ñu. sans ñu xam leen sa kaw ah sans ñu xam leen ñu ñu mën a joxe seen ay preuves. c'est il faut un euh, tout un système mais déclaration patrimoine rek. Mm-hmm. sans rek rien du tout. alors euh, beneen laaj bi mooy yow ni ma ko waxee sànq si ndorteel émission bi Omar Sarr yow yaay meeru Dagana ah Dagana nag mooy sama dëkk mooy mooy nuyu euh, waalo waale ak Dagana waa ya fa nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñun foofu foofu mooy sunu sunu sunu diwaan lañ koy wax wala wala sunu fief <laughs> alors acte décentralisation bi nga xam ne. Euh, en tout cas gouvernement bi euh, taxawoon na ci trop trop trop te bien que léegi sa dégg duñ si lu bari tey ñu bari jàpp nañ ne euh, ministre boobu ko yoroon Aram Aram Aram Ndoye xëy na na mu ko doxalee moo tax ba ñu wàcceel ko yow est-ce que gis nga ne vraiment acte boobu am na am na quelque chose de de am na peps bu mën a tax ba bagage yi changé. xam ngeen pendant ay weer ak weer ñoo ngi doon ñoom di wax di mën a wax sax di. xasuñ nopp mm-hmm. di wax acte trois décentralisation acte trois décentralisation te acte trois décentralisation boobu ñuy recopier France aussi ñoo ngi doon euh, euh, dérouler loolu ñuy wax acte trois décentralisation mm-hmm. dama yaakaar ne sax ñoom duñ ko copier rek si li France. ko ñu laay copier ñu daal waaw loolu rek loolu mais indépendamment de ça soo xoolee bu baax fii pendant ay weer ak weer euh, Macky Sall ne leen bon au plus tard au mois de. je pense octobre xam nga novembre novembre. Mhm. au plus tard mois de novembre ngeen génneel ma acte yi ñoom ñu def ay tournée proposition yu nu def yëpp kenn d'accord aussi yéen ngi bu commencé def seen ay proposition yéen ngi dégg waa parti socialiste yi commencé di wax su fekkee lii la ñoom daan def seen juin. 2011 mhm. euh, ñi ku nekk di wax lii benn fu mu dem de nii commune rurale bi nii ñu koy tasee euh, commune bi nii ñu koy tasee commune bi duñ koy rattaché fii région yi duñ koy tas lu nekk ñu wax ko. proposition farfelu boo mënti xalaat rek def nañ ko si loolu ñuy wax ñoom décentralisation. au final tey jii xam ngeen ñoom pratiquement retiré nañu yëpp parce que nee nañu duñu def duñu dem élection. dans les conditions yu yu euh, collectivités locales yi amoon. donc sa veut dire finalement te loolu ñuy waxee ñoom seen acte trois décentralisation si yoonu yokkute benn programme bu am importance la parce que soo xoolee euh, si biir programme yoonu yokkute. yaa ce qu'ils ñoom luy ñuy ñoom ay pôle de développement regroupé ay régions. ak yu mel noonu mais su concrètement ça veut dire que fii ak cinq ans puisque ren mën na ko def. fii ak cinq ans c'est que moo dem premier mandat. jaayee euh, euh dernier mandat euh, de Macky yëpp <laughs> de Macky yëpp duñ ko euh, duñ ko mën a euh, programme donc finalement seen programme yooyu yoonu yokkute du mën a dem. daan élection Ah, sax xam nga loolu def commune ba pare tas biir commune bi si biir. xam ne nit ñi daan daan leen sanctionné si élection yi di ñëw xëy na après noonu daan tasaat communes yi. xëy loolu nuy mooy seen programme parce que wër na ni Sénégalais mënul d' accord. xam ne xam nañu lan mooy Macky xam xam nañu lan la te du Sénégalais yooyu ñoom ñoo leen joxaat ay ay. en moom. Euh, laaj baa ngi noonu tamit ñu dafa point d'interrogation <laughs> mais mais beneen parce que malheureusement ñi ngi ñi ngi ñi ngi vraiment jeexal émission bi mais bëgg naa et ça c'est c'est vraiment pour satisfaire une une curiosité euh, naka nga amee xalaatu organiser man échappé belle laa koy tuddee <laughs> c'est évasion boobu ah noo noo ko organiser et puis lan nga si jublu woon c'est c'était juste pour pour euh, bomber le torse et tout ça wala pour ridiculiser le camp d'en face bon mën naa leen wax nii ba ma demee euh, Mauritanie d'abord dama ko xalaatoon. Mhm. parce que xam ngeen euh, euh, cour de la CEDEAO te ba bindoon te ba waxoon justice cour cour de justice la CEDEAO. te la ngeen perdre ko ah. te boo vous avez wax ni ba léegi loolu la wax te ba wax ni nun mënuñu voyager. Mhm. que am que gouvernement bi amul droit interdire nu voyager. donc ñu am décision justice de la CEDEAO boobu en même temps mu am lettre gendarmerie bu nu wax ni Oumar Sarr bul voyager ci. ma ni quand même décision justice bi ak lettre bi ban moo si gën a am war a gën a am maanaa am doole. Mm-hmm. ma ni bon bien sûr pour man décision justice bi la moom moo tax ma ni xam ngeen man voyagé na ma ma ni xalaat bu baax parce que man waalo laa dëkk. Mm-hmm. wax waalo ni dex ku ku wax waalo ni Mauritanie parce que Mauritanie bon moonu moonu dex gi rek moo nu séparé donc man mën naa dem Mauritanie lu ma neexee saa yu ma neexee waxoon ko depuis départ. loolu laa dem ba ma demee Dagana fekk ma dem gàmmu Dagana toog fa ñetti fan ma ne ah kii ma voilà li ma doon xalaat kay mën naa ko def comme am naa fi ñetti fan. Hmm. moo tax ñetteelu fan bi ma jël sama gaal parce foofu gaal nu demee. Hmm. à part Dagana kenn du jël bateau wala lan ngay jël da dugg sa gaal mën naa fay mën naa jow <laughs> donc soo nga dugg sa dugg si gaal dem bay Mauritanie soo demee bay Mauritanie jóobu mun sama oto hmm. damay jël foofu oto yooyu. ah oto rang-rang yooyu laa jël bay dem eh, bay dem ak sama valise ak bay dem bay bay Nouakchott dem Nouakchott toog hôtel boobu fanaan fa seetaan film seetaan film sa suba sa naan ataaye ah ak ak ak ak njar waa Zurich ah waaw ak ak ak <laughs> ak yi lekk eh, yenn yàpp yi xam nga foofu. Eh. mooy dibi yeeg yooyu. <laughs> waaw ak ak ak eh, kii tàngaram yu baax ak chameau ak chameau. ah chameau waaw ah, ah, ah. ah lekk nga fa chameau. waaw donc yooyu. su suba sa excursion bu ndaw daal ah, waaw suba sa nag ma jaar sam avion jël nañ ma ni ma jël air Sénégal moo gën a wóor ma jël air Sénégal ñëw delluwaat fii si Dakar. Mm. Eh, ñëw ñu leen demoon naa ñëwoon naa. wax naa sax waaw waaw mën naa wax mais. mënoo mais nee nga leen aussi ah. waaw ma ren eh, ah ma leen ñi daal cuune noonu lu ma lay wax rek mooy mooy loolu mais waxoon naa leen ni. à partir de Nouakchott mënoon naa mënoon naa dem ah c'est possible de mën Paris mënoon naa dem. Euh, Euh, dem euh, nuyu ji président Macky Sall. Qatar waaw ah, Qatar ah. waaw. foofu la demoon man mi ni ma te ma dem rek Qatar mais xam naa ne sama demoon foofu daan forcé bay dugal ma par force seen avion bi. mënatu <laughs> la ah, waaw ma ak yu mel noonu ma ni daal. bon naa ñëw euh, sama demoon Paris ñu ni xanaa Abdoulaye moo moom moom ko santoon wala ñooñu moon dugal Abdoulaye Wade si loolu moo tax ma dellu si directement fii mais mënoon naa toog ay ay weer ay weer sax parce que bi lañ kenn convoqué sama toogoon ay weer ak weer kenn xamul ni voyagé naa kenn fan la jàpp mais quand même euh, euh, euh, monsieur ministre d'État loolu ba nga defee quand même honnêtement comme ni nga ko waxee tëral nga sa stratégie mais yaa ngi doon xaar derrière ay ay sanctions quand même yaa ngi doon xaar boo ñibbisee ñu jël la jakat jakatee la dugal la prison parce que en fait violé nga loi bi dégg naa sax après waa APR naan boo amoon fi dëgg dégg nga doo def doo doo rocceeku doo doo def sa sa petit yow sa petit yoo lekk boobu Euh, euh, euh, est-ce que perte loss la parce que boo xoolee ne fi mu doon nii j'imagine que lo loolu nga defa mënatul loo ko def léegi nii parce que ils vont pas. ay ah. sama la lu ma defoon su ko mën naa la yóbbaale sax soo bëggee man loolu ma defoon su ma neexee tey hmm. ma defaat ko. mais xam nga ne duñ la ci bàyyiwaat. mais kenn mënu ma mënu ma xam nga nu demee foofu wàllu ak même Fouta. amuñu possibilité matérielle. pour c'est impossible sama bëggoon jaar foofu dem Mauritanie kenn kenn amul benn. Euh, doomu adama bu mu mën a euh, empêcher ma dem Mauritanie tey eh, comme sama d'ailleurs sama bëggoon dem Mali wala ma dem Guinée mën a dem foofu mën a dem ah, mais mais sama zone boobu wàllu foofu kenn mënu ma empêcher ma dem saa yu ma neexee nga def ko oh, waaw eh, sama ma a leen wax sax préfet bi ma leen man am naa gaal xam nga bon am na am naa gaal donc foofu ah, am nga sa gaal yu nga demal oh, sa oh, waaw waaw ma ne leen mais frontière bi fa nekk si digg dex gi si frontière bi su fekkee si digg dex la mën naa jël sama gaal bay digg dex gi et à partir digg dex gi nag loolu mën a arrêté mais moom mooy vraiment. kenn kenn mënu ma arrêté est-ce que quand même ba nga ñibbisee euh, parce que j'imagine yaa noo xaar ñu tëj la prison et tout ça euh, est-ce que amul étonnement quand même euh, boo gisee ne au final ça fait pchit gars yi dañ ko constaté xam ne mënuñu enfin finalement c'est pas c'est pas perte de profit quoi. mais xam nga moom ñu bisee. bon d' abord amoo amoo ba ma ñibbisi aéroport xamoon na ne amul délit parce que kenn ba dama ñibbisi xëy na interdit nu moon ma ma génn mais kenn interdit nu ma ñibbi sama dëkk donc bon déjà y avait ça mais surtout indépendamment ça man maa ngi amoon décision justice CEDEAO kon donc beneen bataille juridique moo na entamé wu. te pare woon na ci. pare woon naa pour loolu. pare woon naa tëjee tëj euh, dem tëddi kaso pour problème boobu ñu gën koo gëstu. c'est-à-dire décision justice CEDEAO. mais boobu nga yow déjà euh, monsieur ministre d'État c'est clair euh, politiquement euh, may na la beneen aura boo xam ne amoo ko woon léegi nag. parce que xam nga ñu bëri na ñaanoo oh, Omar saar amul xorom Omar Sarr amul charisme mënul kii yooyu mais fit boobu nga wone foofu dëgg-dëgg ñoom kenn xaar woon foofu. Mm. donc yow am nga fi benn gain politique. maintenant euh, xëy na ñoom dañ dañ xalaat ne bu ñu bu ñu boole loolu yëpp jëlaat la dugalaat la prison hmm. mayaat la beneen promotion boo xam ne xëy na mérité woo ko hmm. moo tax ñu ñu ils ont serré les dents hmm. euh, euh, préféré bàyyi mu jàll ah mu xool am xam bu ñu ba ma génn ñëwee ñu ni non am na condamnation yu bëri yu koy xaar ma ne ma ne yenn condamnation ñoom ñoo mën a xaar si loolu mais mais en tout cas mois je l'ai fait def naa ko. est ce te mën nu woon def dara si si vraiment à part bataille internationale bu nu mënoon mënee nun ah. pour décision est-ce que euh, décision gendarmerie moo ëpp doole que décision. CEDEAO e e maintenant beneen parce que temps ba bi laa il me reste vraiment cinq minutes misaal may ma cinq minutes rek. Euh, ci affaire boobu noonu sa sa échappé belle boobu euh, boo xalaatee ne euh, quand moo tax ba euh, Codé Mbengue ah, mu nekkoon directeur général police ñu jëlee ko ca Pathé Pathé sekk mu fi jógee aussi loolu bokk na benn point noir ci ci ci CV wam ba tax na sa xëy na bu Codé Mbengue bu fi jógul woon Abdoulaye Niang du ñëw ba ñu ba ñu ba scandale drogue bi am donc ce que je veux mooy. sa sa sa sa yëf jëf jooju nga def sa sa coup médiatique boobu nga def noonu. saa hmm. euh, a quand même coûté le poste ay ay Sénégalais est-ce que amoo ci quand benn benn benn regret ñoo xam ne seen yoon nekk de pauvres innocents qui ont quand même. Euh, waaw mais mais est-ce que moo leen xañ seen poste. parce que man non non man la def dama ni man nguur gi amul droit téem fii ci Sénégal que am naa droit comme n'importe quel citoyen am naa droit voyager. kook sama droit la ba ma defee appliquer sama droit ba ma voyagé ba pare nguur gi mënoon na jël yeneen décision nii ñoom mënul dara si lii Umar Sarr def mënoon de mënoon lii wala laa bàyyi leen mais nguur gi moo décidé réagir si par rapport à sama voyage il paraît que Macky moo tëb ni il faut que ñu sanctionner gaañ yi et man vraiment foofu sax laa xawee euh, wax ni quand même général euh, Pathé Seck kooku waroon nangu sax ñu sanctionné keneen ki su ngeen da waroon wax ni su ngeen bëggee sanctionné sanctionné wu leen. kon ma ma mais ñooñu defuñu dara. mais donc ku leen sanctionné nguur gi la. responsable bu mënti am nguur gi la. Macky Sall c'est Macky Sall moo nekk responsable. Ah, d'accord léegi léegi euh, peut-être bi may avant dernière question bi ah euh, euh, taf taf rek retrouvailles libéraux yi ah. bi nga xam ne maître Wade wax na ko ci leerte et tout ça te dégg nañ si ñu bëri a ah joxe seen position yow sa position propre la en deux secondes pour ou contre. moi mais bien sûr ma je suis pour Ablaye Wade mënul euh, joxe ay idée bind bataaxal bu mel noonu. tout le PDS derrière Macky Sall par exemple. Euh, tout le PDS derrière Abdoulaye Wade nga bëgg a wax. <laughs> tout le PDS derrière Macky <laughs> ah, nekk seen euh, euh, ah, seen zoro ah, quoi. tout le PDS est derrière Abdoulaye Wade. <laughs> mais nag retrouvaille bi retrouvaille bi c' une bonne chose pour qui pour yéen ou bien pour Macky Sall. non c' que Abdoulaye Wade soo liiree bu baax lettre bi dafa bind nii moom vraiment moom moo indi libéralisme fii ci Sénégal ak ci même Afrique. que su kon euh, sagom la euh, euh, libéraux yi nga xam ne ñëpp ñoo ngi réclamé wu libéralisme boole seen doole nekk benn parti mm-hmm. ku war a jutu jutu fa mais dunu wax rek nii mais quand même waxtaan la xam nga soo par exemple APR am na ñoo xam ne duñu ni a libéraux am na ñoo xam ne neen duñu libéraux xam nga c'est un peu compliqué hein mais loolu quand même am na ñu bari ñu su liggéey am na ñu wax ni d'accord nu si loolu mais en tout nun nun vraiment bëggoon nañu Euh, Ablaye Wade vraiment euh, sa balaa muy bàyyi euh, politique mu mu mu bàyyi fi parti ba nga xam ni moo yore Sénégal et parti ba nga xam ni libéralisme lay réclamé wu. parti actuellement yow yaa jiite te gis nañu xeer yi ngay jot ah, Farba Senghor léeg-léeg mu mbëkk la Mayor Faye tamit mbëkk na la fi mais lu ma jaaxal fan yi gis naa ne ngeen ngeen ngeen nekkaat comme mburoog soow donc. est-ce que gis nga ni aujourd'hui yow euh, euh, fédéré nga vraiment libéraux yi des ci PDS euh, autour de ta personne enfin autour de votre personne. oui mais xam nga PDS partie bu bu compliqué la. Mm. bon xam ngeen Abdoulaye Wade pendant quand même ay at ak at ngi tabax parti boobu. Euh, ensuite euh, renouvellement yu noon def yi benn parewu si depuis 96 Euh, donc am na mécanisme yi nga xam ni xëy na amuñu ko donc il faut que ñu essayer man sama rôle mooy fexe bay lii Ablaye Wade euh, jox ma ma fexe bay ma ma garder ko su ñëwee balaa congrès mu xam ni. Euh, seen congrès bi kañ la. Ah, waaw fii seegunu ko moom il faut mu ñëw d' abord ñu waxtaan xool situation parti bi. moom kañ lay ñëw moom. incha xam na fii ak. Euh, dana ñëw seet si doomam déjà mais fii ak euh, nawet bi di jeex wala après nawet bi ma enfin naan ko dana ñëw mm. euh, dana ñëw balaa su ñëwee nag daan def situation parti bi mm. xool kañ ñuy def congrès ak nun koy préparer mais l'essentiel mooy man je pense que dans l'ensemble am na ñu maire am na c'est normal parti bu mel ne PDS am na tey si ñenn ñu may mere ëllëg ñu ñu juboo wala yu mel noonu bon parce que mais damay def la nga xam ni mooy tax parti bi gën a gën a taxaw. d'accord du du ñëpp ñoo si kontaan toujours. Mm-hmm. mais sama devoir mooy mooy loolu te Abdoulaye su ñëwee dana xam ni lu ma joxoon am tout cas jox naa euh, danaa ko delloo au moins. vous avez bien gardé la maison je crois. mais maintenant aujourd'hui boo xoolee ne euh, seen seen allié yu bëri ah. bon li déjà euh, bëri na ay ay ay ay ay sa sa compagnon yoo xam ne dem nañu. mais seen allié pareil te bi nga xam ne nii wax dëgg yàlla euh, ça a été un un choc euh, <laughs> quand même euh, pour certains parce que on s'attend on s'attendait pas du tout même man mii sax ah, nga xam ne je suis pas optimiste de nature <laughs> donc te jaaxal ma yombul donc ku mel ne Demba Dia ah Rock Mbalax moo moo jiitee parti boobu di di mag mag modèle et tout Demba Dia euh, euh, lu mu yàqul Macky Sall daf ko fàtte ah président Macky Sall yàq na ko lu mel ne xeme ah euh, seen seen seen lépp lu ngeen def daal loo xam ne nii. Hmm. finalement sax yow mi Oumar Sarr nga xam ne yaa jiite PDS actuellement. Hmm. moom moo la gënoon tàng lu hmm. xeeru raay bu ne jël na ko jóor ko xale bu góor bu nekk fee ca pale ba. donc ci mardi bi. ba ñëpp jàppee télé bu mag boobu di RTS taal télé ba rek jàkkaarloog moom. mu génn ci euh, euh, audience du président Macky Sall euh, def défection bu mel noonu kon yéen naka ngeen ko dundee yéen ku mel noonu jóge si yéen ak façon boobu. bon d'abord xam nga xam nga léegi ñun li ñuy amul lu mel noonu duñu <laughs> du ñu jaaxal da ngeen da ngeen blende. du xam xam xam commencé nu xàmmee xam nit. mais bii laa bëgg a. waaye may wax maa ngi ñëw jëm si loolu xam nga euh, altine. Mm-hmm. altine dem jàmm yi fii si salle bi. salle bi ñu toog nii ñu toog nii di def ñu def réunion mu jël ay engagement euh, am na sax yeneen leader yi nga xam ni duñu duñu daawoon woon ñëw réunion. si ajuma bi passé moom dem na seen ay kër leen wax gàll ñëw leen réunion. moom Demba Dia mii oh, Demba Dia waaw. mu génn démb ba ki démb. Oh, waaw mu ni dëkkaay ñëw réunion il ñu mën a daaneel. Euh, euh, euh, Macky Sall Macky Sall sunu fagaro boo xam nga wax ak yu mel noonu donc la fi jógee. lundi. talaata talaata mu dem ndekki ji mu dem reer ji si président Macky Sall. benn responsable woon mu ni ma taalal télé mu ni mu ni ma donc Demba Dia ma nga foofu ma ni bon mais. le plus important. c' est que quelque soit est ce que woo nga ko ba ma gisee affaire boobu woo nga ko. non man woo ma ko mais xam naa après dana wax yeneen ak yeneen xam nga nit ñi ku nekk soo génnee ba pare daa wax lu nekk daa ko wax daa. Euh, daa la euh, ah. n'ayons pas peur des mots trahison la xam naa bu pare man lay reen ni mais quand même euh, dëgg dëgg Demba Diallo mu def tamit rëy na quand même. mais au fond nous l' essentiel. xam nga xam nga ku génn rek da ngay arranger en même temps une certaine ah, situation. dafa leen xam nga noonu. duñu bëggoon ànd ak moom. Euh, ñu profité ci ci sànni xeer yi mu sànni ànd ak moom. Ah. bon mais disons ñun ñoo ko ëpp dooleem y fu mu dëkk. ay ah, ah, waaw ñu ko bu doole tamit bu ñu xoolee élection yi. fi am Moussa Sy pratiquement kii na non xam élection yi passé élection législative yi. nun euh, à part APR donc nun euh, coalition appaire bi nun ñoo jiitu. Euh, de très loin avant bokk avant bokk gis-gis kii Demba Demba Diamy nekk si si daara yi bon mais. bon ah, ah bon mais mais <laughs> c'est pas grave eh, mais mais mais c'est pas grave. Demba Dia ci daara yi la nekkoon. Eh, oh oh mais mais c'est pas grave. Euh, monsieur le ministre yaa wax ni Demba Dia. waaw <laughs> oh, oh, mais c'est pas grave. mais mais <laughs> mais li ma koy rëy na Demba Dia si daara yi la nekk. mais c'est pas grave donc lii lii dañu tax rek ñu gën a yeewu. ay ñu gën a fagaru si si si. mais en même temps c'est pas normal parce que bu ñu xalaatee tamit ne vous n'êtes plus puissant dëgg-dëgg seen permanence bi yàgg naa fee ñëw man ma yow mi sama service yow amatoo dara wax dëgg yàlla hmm. euh, dafa naa bërki dem sa wam naa sa oto bi paan ci digg <laughs> circulation bi hmm. kon dem ba te te dem ba temps yi dëgg yàlla musique bu doxatul kese di jaratul dégg nga te dem ba perte de famille xam naa ne moom bu yow ngeen xool xam naa ne tey laa ko jigéen si télé ndax dem ba ci dama karfee mais ni dëgg dem ba ci fi mu toll nii euh, poche dañoo bëtt te yéen amatu leen dara hmm. franchement kon nag euh, est-ce que li mu def nii aussi Euh, euh, euh, xoddeeku bala ngaa laqale est-ce que quelque part du ngeen ko comprendre ne ba dafa pauvre xaalis amatul dara yéen tamit amatu leen dara mais mu ne naa dem ci ceeb fu mu gën a nii fu fu nu ñuy waxee ci cere si kii sax lacciri xàkko bi. Hmm. fee la gën a neexee ci président Macky Sall. Hmm. ndax yéen amatu leen dara mu dem fee. Hmm. waaw xam nga c'est pas légitime. ah mais moom moom moo tax moo xam lu tax muy def politique xam nga ku nekk yaa xam lu tax ngay def politique. mais ce qui est sûr c' que euh, li mu def xam su génnee dana wax ni euh, si campagne bi passé Ablaye Wade yoroon na ko xaalis moo tax. Ah, lii xam ne yooyu yooyu yooyu dañ ko génn ji. xam na non ko dara. mais donc yooyu yu mel noonu dañ ko waxi ak waxi waxi mais du loolu moo doon waxu waxum démb. c' démb bu mu toogee fii. te bu ñu lënd bi lëndi xam nga te loolu moo gën a gaaw mooy altine la. altine bi waaw moom Demba Dia mu toog ak ñun wax lu nekk Macky Sall après alarba ji mu dem reeri eh, eh, si si si si Macky Sall mais adduna daal moo tax bon mais ñun ça nous encourage rek cest à lii moo tax il ñu gën a fagaru ñu mel na demb Dia dana amaat benn ñaar fukk mais donc l'essentiel c'est que ñun ñu xam ni loolu mënu décourager mu dem wala ñaari dem wala fukki Demba Dia sax dem loolu munu décourager si suñu engagement bu ñu am jàppale euh, PDS euh, nekk euh, si gannaaw Ablaye Wade fexe bay euh, ñi nekk prison ñu libéré leen fexe bay dëkk bi mel neneen dëkk bi naat loolu mooy sunu sunu objectif dëkk bi bañ a nekk mag yi vraiment. président Macky Sall quand même c'est un euh, vraiment euh, mun nañu wax tamit foofu aussi ne président Wade li mu jàngal mokkal na ko parce muy dagaar miiree rang Euh, afan ñu adversaire am hmm. comme yéen jël na leen ñu bëri hmm. ah euh, Idrissa Seck euh, jëlal na ko Me Nafissatou Diop Cissé yanul na ko tamit fële ñoom Omar Gueye ak ñoom it Aly Ngouille Ndiaye kon finalement yéen. Pape Diouf nga waaw ak ah, Pape Diouf ak l' autre Omar donc donc finalement est ce que quelque part da ngeen toog daal ne wax dëgg yàlla neexul neexul même si Macky Sall aujourd'hui enfin bokkatuñu mi ngi fay ñu ngi fële mais quand on, on parce que euh, il est en train de réciter des leçons qu'on a tous appris euh, ci amphithéâtre boo xam ne waa du mën a joxe cours ya xam nga moom xam nga euh, taalibe la bu bu mokkulul bu baax mu jàng moo tax chaque fois su doon appliqué lu muy def rek dafay xalaat ni nan su koon Abdoulaye Wade lu muy def mm. xam moom noonu lay noonu lay raisonné mm. mais eggul niveau Abdoulaye Wade il ah, fallait que ah. il fallait que mu mais l'essentiel c'est moom mooy yor état bi léegi d'accord bon nun suñu objectif mooy mobiliser nit ñi bay Sénégal mel neneen que Sénégal boobu nit ñi infrastructure yi am nit yi am euh, am nekk dëkk bi bañ a yi nit am ay moyens yu nu yu nu lekkee euh, euh, agriculture bi développé économie bi développé wu donc foofu Abdoulaye Wade doon yóbbu ñun foofu nu bëgg a euh, yóbbu Sénégal donc mais Macky euh, dëkk bi dafa Macky kooku ñëpp loo rek doy na comme comme comme programme waaw ah, monsieur le ministre d'État Oumar Sarr euh, coordonnateur député à l'Assemblée nationale coordonnateur du Parti démocratique sénégalais sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sénégalais yi ok jërë jërëjëf Aïssatou donc ma kontaan trop si waxtaan wi mais surtout di wax aussi sunu responsable si ña xam ne yëpp xam ne dëkk bi nu muy nu muy doxee euh, jaaduwul euh, euh, que économie bi nu mu waroon doxee jaaduwul que liggéeykat yi lu nu am jaaduwul que loolu ñuy waxee impunité gën a développé wu que comme comme Euh, réew mi wala même xaalisu réew mii ñu ko commencé di euh, pasar pasare di am sans san sans ñu am benn euh, sans impunité j'allais dire hein mm-hmm. ñu ñu am yooyu yëpp loolu yëpp war na tax ñu gën a fagaru ñu taxaw ñun ñëpp pour dindi fi lu fi lu fi am moo tax yaakaar naa ni lii rek waxtaan la mais dana ñii dana tax je pense que ñëpp dégg aussi sunu sunu xalaat si do eh, réew mi nu muy doxee. Mm-hmm. ak sunu gis-gis pour eh, ëllëg. Eh, Sénégal mel mel leneen. waaw ah, merci beaucoup en tout cas monsieur le ministre émission bi nag dañ ko taf tafee ah, à la <laughs> pratiquement à la dernière minute lañ ko lañ ko décidé li ko waral mooy changement yeeg ak yooyu. mu yow sa emploi du temps ñu lay remercier vraiment si si disponibilité bi parce que ba ñu sollicité rek nga bàyyi lépp wax dëgg yàlla euh, ñëw euh, liirandoog ñun actualité bi loolu euh, ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax di sant di gërëm tamit yéen mbokk yéen ñi toogoon di seetaan seen émission face to face te du ngeen ko xatee dimanche bu jot ñu remercier nag lu bare bare yi sunu sunu partenaires yi ci émission bi di si jiital nag euh, comme d'habitude rek le complexe euh, Sofia euh, Mamel aviation kooku sama mag Fatulaay Kena sama mag sama yaay ah Fatulaay Kena madame Sall moo fa nekk adresse mi ngi jàll fii Mamel aviation la moo génn fii ah ci misaan jëlal bagage yeeg yooyu mèche yeeg bagage cheveux yu baax yi yëpp foofu la jógee maquillage tamit foofu la mais fii moom damay def nii rek ndaxte kii temps yi mooy sama partenaire bu bees euh, moom laay diw bër bi bu baax a baax di Mati euh, euh, Stock House moo moo jaar fii en tenue bii moo fa jaar moom nag ma nga foofu nga xam ne mooy Sicap Jëppal 3 nekk ci wetu école Saldia kon adresse bi mi ngi jaaral nii yenn xale yu bëgg baax yeeg yooyu yii rek façon yi moom euh, foofu la ak am pagaay yi ma nga fa donc euh, ma koy remercier lu bëri moom mat yi ak euh, xalem yooyu mu nekkal ñoom ñoom Thiané ñoom Kumba ak tamit nag du nuyu nag bu baax a baax a baax Yacine ña ña Mbaylo kooku ma nga ca Suède mbokk yi face to face la woon waaye dama fàtte nag ki ma jàkkaarloo nii sama malaaka moo ci bi Alaaji <laughs> Mbisaan Ndooy caméra bi am jub ci wet gi sama doom jooju euh, Jatu Njaay namm euh, naa la doon dellu sil ak nag euh, keneen ki nga xam ne nag mi ngi signé son combattant l' émission mooy la grande diva Adja Diallo dellu si waat na mbokk ñi dimanche prochain beneen émission même chaîne merci et à bientôt au revoir